asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi rawatina ñu bàyyi xel RTV Dakar dañuy dikk ak yéen ci li gën a fës ci yéenekaay yi di ko ànd ak seen mbokk seen xarit Soxna Awa Diop dañ koy door rek langue politique gi nga xam ne ñu ngi sàkku njiitu réew mu daal yi bi ñu jël mbas mi di ko def aw lay ñu jógee ci loolu ba tey dañuy des ci politique bi ñu ngi xam le ni ñu fara ci kujje politique bi ñu ngi wax ni dialogue bi dafa war a gaaw door lu mu gën a gaawee ba tey dañuy des ci politique bi di wax ci turbine mi ñëw ak ñun ci parti socialiste mi doon démb di xam la ni dinañ am candidat maanaam mbër ci élection présidentielle yi di ñëw bu ñu paree ci loolu ñu wax ci vox populi mi ñëw ñun ci professeur Massamba juuf di xam la ni màggal gi bu amee ah mbas mi daal dina law lu bëri ci réew mi te dinañ indil ay jafe-jafe bu ñu paree ci loolu dañuy des ba tey ci mbas mi di ñëw ci critique yéen kaay mi xam ne ni mbas mi mën na wàññeeku wante fonds ya ñu daan fajee si biiru sat nawet daal mën nañu lépp dañ koo jël daal di koy def ci mbas mi le bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw ci le quotidien mi dikk ak ñun ci coow li am ci diggante population wu Tobène ak euh, directeur ICS di Alassane Robert Diallo mi ngi xamal ni six hectares yi état bi moo ko ko jox te euh, fas yéenewul négocier benn yoon ci lile bu ñu paree ñu wax ci Walf Grand Place mi ñëw ak ñun ci xale bu góor bi am juróom-benn at bi defar benn robot boo xam ne day. distribuer gel ci réew mi bu ñu paree si loolu ñu wax ci observateur mu ñëwaat ak ñun ci cambriolage bi amoon fan yi centenaire di xam ne soixante seize millions yi fa jot a jël am ginnaaw enquête yu ñu def am na benn journaliste ak benn rakku ministre bu ñu daal di teg loxo te enquête bi ba tey mi ngi wëy bu ñu paree ci loolu ñu wax ci les écoles ñëw ak ñun ci sida bi nga xamante ni léegi wàññeeku na bu baax mais tëréew ñi am ñaar fukki at ak juróom benn ak fanweeri at ak juróom ñoom lay daal di xel di jàpp mais li ci gën a doy waar bu doy mooy takk der yi la ñu nemmeeku ni ñoo gën a am feebaru sida loolu lañu fi amoon ci information ñu ngi leen di sant di leen gërëm mbokk yi doon bàyyi xel RTV Dakar jërë ngeen jëf